نعم. السلام عليك وعليكم السلام ورحمة الله آه يا جماعة المسلمين الله جينا الله بمانغلا زيارة مانغلا فدو الهار فدام يلا نقدون الهار نقي خاص ستور يوتمت مانغلا نيو بباخ دي والله والله والله تبا الله جينا لامبو مو جانغتي lamb جينا nga مو ne moo مونجاي barki démboo njaay te Modou Lo le roi des arènes ñu ñu ne daan na ci Siteu ak ni nga gisee combat bi ak noo ko jàngatee Alaaji Naar Lamb mu bax mi maa ngi laa nuyu ci néegi Amérique. maa ngi lay dellu ziar dellu nuyu bu baax di nuyu amateur yi nekk ci Instagram bi yëpp. Mm. di wax coow li bëri na après combat bi. waaw surtout surtout Alaaji Lamb avant combat bi coow li bëri na après combat bi coow li bëri na. Mm, mm. waaye lu ma ci bëgg a wax rek mooy bis bu neex la woon gis ne lépp luñ ci doon séntu am na quoi parce que am na xeex am na bëri. Mm-hmm. waaye Modou Lo muy sama mbër bi ma xam moom am na lu ko manqué mooy vivacité da am na lu ko manqué vivacité waaw bismillah pour mu pour mu pour mu pour mu pour mu éggali bëri bi quoi xam nga dafa mel ni poids bi moo ko jàpp poids bi moo ko xaw a jàpp tuuti ba pare comme loolu Ndiaye di wax eh, bëri ñaaro koy def Siteu mm-hmm. na nangul woon bëri quoi dafa dafa am lu mu doon moytu daal parce que boo gisee Modou Lo saa yu koy attaqué rek day dem génn ci biti day génn ci biti saak bi quoi kon am na ci site cité de descente quoi te pourtant wax naa ko barki dem ba rek maa ngi koy doon wax Aly Ndiaye naa ko match bi kii combat bi mën na pare sax mën na jeex ci match nii parce que c'est dépend ci cité lu muy lu muy te cité dafa mel ni supporter am tamit li ñu li ñu wax ci moom gomuñu ko quoi parce que dañuy kontaan ci match nul bi quoi dafa mel ni victoire la ci ñoom te du yoon si te dafa waroon ñëw démb bi som la woon su fekkee ne forcé ne tuuti rek mën na woon am dara quoi parce que résisté na daal en tant Lo en tant que supporteru Modou moo naan bu Siteu ah bu Siteu gënoon a dëggal boppam mën naa am dara ci Modou mën naa am dara ci Modou Lo parce que vraiment Modou Lo démb dafa bëri lu ko manqué parce que sama mbër le ne dama koy wax parce que vraiment nekkuloon ci bis bi quoi parce que mënuloon eggali action parce que Modou Lo saa yu mu tàmbali benn attaque Dubaay tànk jeexaloo mais démb dafa doon attaque ba pare xaar loolu tàmmuñu ko ci Modou Lo bo loolu nag vivacité moo koy indi quoi dafa mel ni poids bi moo ko xaw a jàpp tuuti comprendre nga site site nag su fekkente ni génn wuloon ci biti mën na woon am jëli bi bu nekkoon ci biir comme lu ko gars yi di waxee mën na am dara comprendre nga comme jëli bi ci biti la nekk te moom yëpp kooram bi yëpp mu ngi woon ci biti mhm. kon mënu mënuñ ko même record bi muy def nii du ci am dara parce que règle règle bi noonu la waxee quoi mu su fekkee ni gan waaru dafa nekk ci biti mhm. kon de jëli bi duñ la ko mën a accordé quoi parce que li yëpp ci sa yaram mu ngi ci biti mhm. bi beneen bi grand fadam coow li dafa bëri cité cité Balla Gaye Modou Lo nangam sangam lu tax ñu changé sujet bi du yoon ñu changé sujet bi. yow ban combat ngay xaar. Abdoul Aziz la la waxoon nee na diggante. Koroñ ki jël Koroñ. ak ki ah? jël du lool la woon sujet bi. ba léegi de ba léegi de. déedéet man léegi maa ngi dégg ay cité ñu ngi bëgg a forcer di def publicité cité Balla Gaye. Balla nag da nga am fulla da nga am fulla dégg nga da am fulla yow cité moom su fekkee ni da ngaa damay jàllale sama sama message man en tant que amateur. Siteu li nga nekk du yoon waroo nekk fii ba pare ngay nekk fii di bëri di bëri di def. na naar làmb déglu Aziz njaay li mu wax Modou Lo ci diggante ma Balla Gaye. dèjà li bëri na trop parce que coow li bëri na trop ñu ne nañ Balla Gaye numéro 2 Siteu loolu xajul arène nationale waaye dañuy tâche bi nekk ci kanam Modou Lo Modou Lo ñëw di def contre Balla Gaye. Ah, ñu ngi toog yi dañ ñoo ragal ñu newul dañ ñu ragal. dañ ñu ragal. Ah, man nga doon xam ne dañuy ñeme semaine bi ku ci ñeme te nekk jàmbaar jëlal avance dëgguñu kenn mais dawuñu kenn ñu ngi leen di xaar wala te ñu leen a boole bokk kenn avril kenn juillet ah bu nee na ñoom pare nañu pour jox si te avance jox Modou Lo avance pour Balla Gaye bëri ñoom ñaar ñëpp loolu wax boobu rafet na waaye man li ma ci bëgg a ajouté mooy leen mooy fekkente moom Abdoul Aziz dafa bëgg a Modou Lo te yàgg mu bëri ak Balla Gaye ne génne xaalis ne fay 500 millions Modou Lo bëri parce que Modou Lo dafa njëkk ne ne du tubul bëriwaat ak Balla Gaye day bëri ak xale yi te loolu lay définir instant nekk comprendre nga su fekkente ne nag ñoom dañuy insister pour que Modou Lo bëri nañu génne xaalis nañ ko fay 500 millions mu bëri wala ñu bàyyi Balla Gaye muy nekk ci xale yu ndaw yi ndax mu mënti am dara parce que loolu kese la waaye affaire publicité noonu ba Gaye Siteu ba Gaye Siteu moom du combat wax dëgg yàlla du combat. du combat mais mais nar làmb lan moo la gën a ñor ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xam ne mooy Siteu lan moom la ci gën a impressionné ba nga ne combat bi daa war a am. dafa warul am. ba Gaye Siteu lan moo tax nga ne combat Siteu Modou Lo moom nga gën a def choisir ci combat Siteu Balla Gaye numéro 2. parce que Balla il faut que ñu def éclairer quoi il faut que ñu ko quoi il faut que mu leer man dama bëgg a Modou Lo Siteu ñu tëggaat ko. boobaa day gën a garaaw bu ci bu mujj bi parce que ñu koy éclaircir quoi parce que ñu ni kii di victoire kii nag xam nga kii di réclamer fële kii nañ ko tëggaat moo gën nañ ci fay xaalis ñu tëggaat ko moo gën wala bu fekkente ni ñu def loolu nañu jël Sa Thiès wala ñu xaar rek rek bu bëri ak Boy Niang ba pare foofu ku jël ku ku gagné foofu comme ça ñu mën ko jox Modou Lo waaye Balla Gaye moom pour mu bari ak Modou Lo nañu génne xaalis feebar boobu xaalis moo koy faj xaalis mooy faj feebar boobu combat troisième bi xaalis moo koy génn. waaye du ay dégg ngeen lu naar lamb wax nee na. combat Modou Lo Balla Gaye numéro 2. feebar boo xam nii xaalis rek ko mën a faj. jeex feebar la boo xam nii ay garabam xaalis la liquide moo ko mën a faj. mais lan ngay xaar ci Balla Gaye numéro 2 ak Modou Lo naar lamb lan ngay xaar ci Balla Gaye numéro de ak Modou lu le roi des arènes Balla Gaye l'empereur des arènes Modou Lo le roi des arènes. Siteu ngi ci côté bi Siteu moom lu waay teg mu fobeere guddi gi toll moom moom day fobeere rek di dem lu waay teg mu fobeere. combat Modou Lo ak Balla Gaye du mos xewi saa yu ñu koy tëgg rek day tàkk. dafa nekk hmm? combat boo xamante ni combat ñëpp la ñëpp koy xaar. dafa nekk combat boo xamante ni kii promoteur du ci ñàkk amateur du ci découragé kon combat la boo boo xamante ne lépp dañ koy xaar waaye nag wax dëgg yàlla moo di def ci joxe kàddoom ba pare mais su fekkente ni dañoo bëgg mu ñëwaat nañu fay xaalis rek ñu teg ko moo gën quoi waaye changé combat boobu tey nar lamb bu ñëwoon Balla Gaye numéro 2 ak Modou Lo taxaw na lan ngay wax yow ah lu may wax lu ma daan wax rek moo duloon ndam rek moo duloon ndam rek man loolu laay parce que instant bi Balla Gaye da ngaa jàpp mën naa daan Balla Gaye numéro 2 non instant bi Modou moo instant bi na wàññi poids tuuti rek na wàññi poids poids bi muy indi karo démb ni baaxul ci moom na naftil mu nekkoon rek xam nga ma ñëw tuuti xam nga lu tax lu tax Modou mu yox poids bi tuuti parce que poids bi nga xamante ni da nga ci daan Boy Niang poids boo xamante ni da nga ci daan ba kii Ama Baldé nga ñëw di yox contre cité du yoon du yoon mu def loolu kon ba léegi Modou Lo su fekkee ne dafa bëgg a effacer tâche bi yëpp ñun ñun amuñu amatuñu dara lu ñu lu ñu jooy quoi amatuñu dara lu ñu jooy wax deug yàlla billahi modulo Lo su daanoon duñ ci décourager mais su fekkente nak dafa bëgg faj suñu xol bu baax ñun amateur yi nañu teg Alias seen ci suuf na tok ci kawam ben yoon rek. la ilaha illallah yàlla si dara xam dolli nga ne nga ne yéen ci porteru modulo pour seen xol sedd il faut foog yéen modulo tokki dënam portage ci yëpp benn tâche rek moo des fi mooy tâche Balla Gaye parce que saa yoo tudd Modou Lo ñu naan Balla Gaye moo ko daan ñaari yoon ñetti defet la am ndax Modou Lo ëppul doole Balla Gaye guddi ñu toll ndax Modou Lo ëppul doole Balla Gaye ëpp doole te fu mu ko jàpp dina ko daan man mii maa ko wax laa nag na am na am fulla Modou Lo na nga am fulla bii combat combat amateur la il faut ñu fay la xaalis bu bëree bëri cinq cent millions bu génnul bul dem waaye naa ne bis bu ñu la fayee billaahi boo jàppee Balla Gaye lu mu la defoon lu raw loolu koy def. yow am nga gëm-gëm ne lim Balla Gaye defoon Modou Lo Modou Lo mën naa def Balla Gaye lu ko raw. temps bi instant bi nii parce que Balla Gaye day foraatu rek dafa dafa jàpp tafatin fekk tafatin daf ko ragal ci xel quoi parce que man dama rus sax fu ma nekk dama toog longtemps génnuma te Instagram parce que man dama gëm ni tafatin day daan Balla Gaye dama waat ni tafatin day daan Balla Gaye mais Balla Gaye beneen affaire la quoi. parce que tamit Tapha Tine daf ko ragal intérieurement ko naar lam ndax Modou Lo mën daan Balla Gaye mii nga xam ne nii guddi yi Simba daal daal Simba mu bees lañ gis Simba fan yii daa wàcc lal bi fan yii Simba ki suuf lay fanaan. man mosuma la wax luy denc Modou Lo Modou Lo kese moom du ma la mos a wax luy denc moom instant bi be benn mbër rek moo mën a daan Modou Lo te doo ma tudd turam. بينهم بر كسا كسا كسا مو مو مو مجاهة إنساني تدوم تدوتورا مودلو بري يقول أكمل ما نيفي ضويب مودلو مولين من بتي بالغي إنسان بالغي نكتول بالغي لكن لما تخ نراجل عمر ديكنت عمر كان رك رك أك مودلو بق ديكنت مودلو بالغي أفير بيا لكن لما تخ نبق ديكنت عمر كان رك رك نراجل عمر كان رك رك أك مودلو بق مودلو أك بالغي لو ورلو non mais yow da ngay gisaane wala lan non fadam yaa garaaw billahi grand fadam yaa garaaw xam nga Reug Reug jotagul quoi ñoragul ñoragul xam nga Reug Reug il pas confirmé d'abord il n'est pas confirmé parce que Bombardier dafa nekk de carrière te mooy premier combat bi mu bëri poids lourd kon na bëriwaat ak keneen bu daane booy ñaa boobaa Modou Lô dutu ko mën a bañ comprendre mais Balla Gaye moom na jël na jël franc pourquoi muy jël Siteu Siteu daf ko bañoon temps tax mu koy dikkaat léegi ne di dikkee na na jël franc Balla Gaye na jël franc. xam nga bale Gaye nag daa bëgg chaque jour saa yu Modou rek Balla Gaye day bëgg day bëgg naan café foofu fu Modou Lo essayé rek Balla Gaye dafay yàkkamti fépp fu Balla Gaye essayé Modou Lo dafay yàkkamti. loolu seet naa ko ci boo ñaa gis naa loolu waaye la wax dara Balla Gaye bul juum Modou Lo nekkatul ko Modou Lo bi nga xam Modou Lo daf la xam A jusqu'à Z. naa ñu man euh, ñoom gars yi gars yi gars jàpp nañ ne Modou Lo bu jëlee Balla Gaye wala kii euh, Siteu bu jëlee Balla Gaye Balla Gaye di ci naan ataaya de. Modou maa ngi lay yónni message bi xool jëlal bale Gaye nga jëlal ma kii bi empire bi il faut nga boole ko ak beneen grade bi il faut nga mu doon ñaari grade jëlal Balla Gaye na ñu fay cinq cent millions parce que temps temps yi loo tudd rek ñu jox la jëlal Balla Gaye nga bari ak moom nga fa jël suñu xol tâche yi nekk fii il faut nga dindi ko teg ko fële parce que hoseini mum saýine we hariginan burbodan munan man skiladan makodan dan ga boynya fi balagenya onan madan boynya dan ga umma kif ko fi dan rek balagenya di fog ay denam quoi il faut que jël ma balagay nga fajjal ma ko bi yoon ngir yalla ak ñeneen bi combat si te mum balagay grand fadam bay ko quoi bul ci ciow bul ci ciow si te Siteu nañ ko jox Sa Thiès revanche ah na jël revanche contre Sa Thiès wala na dem jël ci morom parce que échoué woon na ci Lac de Guiers dafay échoué tamit ci Modou Lo démb bisam la woon démb bisam la woon mais conseil buñ ko jox moo ko tëral mu foncé quoi sinon mun na woon am dara démb billahi comme rëcc na ko rek ne delluwaati xale yu ndaw yi quoi wala nañ ko jox Gris jërëjëf alaaji naar lamb kontan naa ci boo amee looy daanelee di ko tëjee looy wax lan ngay wax le roi des arènes modlo mi nga xam ne mooy sa mbër ndax nee nga ko mu jël ni duma ko daan ko ndax loolu mooy li yoon ndax yéen supporteru modlo yi da ngeen a am benn taas bu nekk fii te Balla gay moo leen ko def te ngeen ko bëgg loolu dëñ te modlo rek moo ko mën a dindi tey ji loolu ah, ah, ah, naar lamb ban kàddu ngay tëjee ma dugal beneen amateur gaaw xanaa di la remercier rek ci sa sportivité bi parce que man moom xam nga sama waxti lamb ne xool quoi mais malgré ça yaa yaa yaa ngi may kii quoi di la remercier rek ñu ci ci biir yëpp